maintenant loolu je dis bien concernant euh, lu ñu tuddee euh, le cas Rebeuss mhm. loolu moom c'était un projet de l'État du Sénégal dama xamul na ndax bu ko dafa daf ko bëggoon defaral boppam mhm. wala ko bëggoon jaay ay nit pour ñu defar seen yëf bopp mhm. mais loolu moom lu am la exactement alors Thioune avant avant avant nuy jàll ci beneen point maa ngi gis benn xibaar bu bàyyi koo fële euh, sunu naataangoo yu nekk ci ci Sénénews ñu ni xamal ni kii la ministre de l'Intérieur Jean Euh, dafa def li nga xam ne nag moo di ab réaction ci violence bi nga xam ni euh, moo ubbee lii di lii di campagne bi euh, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024 le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique appelle l'ensemble des leaders de partis politiques et coalitions de partis à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue. Le respect des valeurs démocratiques et du vivre ensemble est essentiel pour garantir un processus électoral respectueux euh, des droits de tout un chacun estime Jean-Baptiste Tine En tant que euh, garant de la sécurité publique, le ministère réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de euh, chaque citoyen. Euh, tout au long de cette période, des dispositifs adoptés sont mis en place pour assurer la tranquillité et la sécurité et la sérénité de tous les Sénégalais permettant ainsi à chacun d'exprimer librement ses opinions dans un climat pacifique, renseigne un communiqué. Le ministère exhorte toutes les parties politiques à adopter un pour contribuer à une campagne digne et exemplaire, euh, gage de notre engagement euh, commun envers une euh, démocratie stable et euh, respecté donc loolu euh, di xibaar bu mu jëlee su naataango yi nekk fële ci euh, Saint-Louis ñeel li nga xam ne nag mooy violence bi am ci campagne bi ki nga xam ne nag moo di le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine di woote encore li nga xam ne nag moom moo di way ku jigi nu respecté encore li nga xam ne nag moo di les valeurs démocra démocratiques ak li nga xam ne nag moo di vivre ensemble pour rek nu mën a wëyal li nga xam ne nag moo di processus électoral bi si li xam nag moo di jàmm ak jàngatee réaction ki nga xam nag moo di Jean Baptiste Jean Baptiste Tine le ministre de moom mi nga xam tey ji moo war a euh, tëgg yi la élection waaw xam nga moom dafa am ñaari rôle boo xamante ni euh, moom lañ ko sant mhm. moom la ñu wax ne yow yaay l'organisateur des élections mhm. pour ne pas dire yow sa ministère mooy organisé euh, beneen bi ñu ne ko yow yaa yore lu tuddee la sécurité publique mhm. maanaam kaaraange sénégalais yi ci sa loxo la nekk état lu mu rëy rëy yow la ñuy wax ne yow yaay ministère de la sécurité publique. Uh-huh. alors su dee sécurité publique boobu dafa am ay menaces yi pesé ci kawam. Uh-huh. menaces yi bokk na ci kàddu yi. kàddu yoo xamante ni mën nga ci gis violence euh, jëf yi mën nga ci nga jëf yoo xam ne mën nga ci gis violence. Uh-huh. te loolu bu amee dafay yee fitna. léegi yee fitna boobu dafay tax li ñu tuddee tranquillité publique. te euh, préfet bi euh, plutôt ministre bi war a taxaw ba loolu. Euh, sénégalais bi du sentir ne fi ma nekk nekkuma si si mu nga am lu ñu tuddee sentiment d'insécurité. Mhm. sentiment d'absence de tranquillité publique. Mhm. donc ministre bi bu amee lu mu war a def rek mooy. Mhm. fàttali nit si seen responsabilité. Euh, fàttali nit si aussi. Euh, fu ñu seen limite mooy seen provocation yi warul am. seen intention yooyu nga xam ne dañuy am menaces yooyu dafa war a dakk. mais aussi du yem ci fàttali mu jël ay devant. Uh-huh. jël wane ne aussi li fiy am mooy force reste à la loi. Uh-huh. mooy mën ngeen wax def leen lu la neex waaye nag man maay ministre de l' intérieur. Uh-huh. am na loo xam ne moo ko seetaan moo ci réew mi. donc loolu j'aime bien le communiqué et c'est ça c'est le communiqué d'un ministre qui est soucieux justement de ce qu'on de la euh, tranquillité publique mais aussi de la sécurité publique parce que tey yàlla tere bu dara xewoon que président de la République moom lay njëkk a woo tey dara xewoon bu yàlla tere ci wàllu sécurité en tout cas laa wax. Uh-huh. président de la République moom lay njëkk a woo laaj ko ah li may dégg lu mu demee. Uh-huh. donc puisque yow yaay responsable bi nag boo gisee lu mel nii nga xam ne dafay raam. Uh-huh. puisque raam day waaj a raam sax raam pour ma raamagul day waaj a raam. te fu ñu jëm dafa sori tey le deuxième jour dese nañu dix-neuf jours. bu continuer nii day jur leneen léegi balaa muy raam sax di dem yow nga araftu leen. Mhm. léegi nag comme ça lu xew nga xamante ni yow di nga jël sa matukaay. Mhm. waaw lu xew aussi soo jëlee di décision. ñu ñu ñu xam ne euh, ñoom ñoo ko def. Mhm. alors euh, keroog Barthélémy Dias bu ñu ko invité fële ca 7TV euh, mu jàkkaarloog bu li nga xam ne nag moo di majorité bu fekkee choisirunu li nga xam ne nag moo di le premier ministre ba moytuwul dañuy daal di tàbbi ci li nga xam ne nag moo di l'ingouvernabilité parce que avion du daw oto du daw te salaire yi ko fay alors tey Ousmane Sonko en tant que tête de moo di caravane fële sa jifeer euh, mu mel ni kuy tontu ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko di ñu xamal ni euh, dafa am ay opposants yu bëgg a euh, li nga xam ne nag moo di le le le pays bu demee ba àgg ba am li nga xam ne nag moo di majorité ci assemblée nationale du ñu fay li nga xam ne nag moo di salaire yi tey jii mu mel ni moom Ousmane Sonko mu ngi profité si occasion boobu sans nommer ki nga xam ne nag moo di Barthélémy Dias pour tontu ko ndax daanaka loolu ci wàllum politique moom rek moom moo ko jotagum mi ngi ci pour l'instant ci way ko jig nan nga euh, mën tontu Ousmane Sonko nan nga mën jàngatee tontu bi Ousmane Sonko yëkkati foofu di ñu xamal ni dafa am ay opposants yoo xam ni euh, waruñu sax am benn wala ñaari euh, député ci élection yi ñu dëkkmal. waaw man sa sama ma tontu ci ci kàddu googu nga xamante ne moom mooy mooy salaire yu ñuy bañ a fay ñàkk. mais ingouvernabilité Sénégal arrangé wul kenn. arrangé wul parce que ingouvernabilité mooy kenn du doxal. Mhm. maanaam réew mi li nga ci bëgg mënul nekk. mais réew mi bu dee kenn doxalul kay média yi day fay. Mhm. wala maanaam bu dee Sénégal dañuy xiif benn dañuy xiif ñaar. loolu baaxul sëñ bi. Mhm. loolu moom gisuma par exemple circonstance yi war a jur loolu ci réew mi jamono ji gisuma ko. Mhm. te gëwuma na gëm naa ne aussi li koy jur amu fi li koy jur amu fi de. supposons ma jox la exemple majorité na dem ci opposition nañu am cent soixante cent soixante. nañ ko am ba pare. Pastef wax cinq députés réew mi lay def mm-hmm. da nga naan yéen yéen ay indi premier ministre mm-hmm. ok président nommé ko ok et après qui définit la politique de la nation mm-hmm. c'est le président de la république maanaam président moo ne yoon bii jël leen ko mu ne jël leen yoon bii samay ministre yow premier ministre toppal yaay jiitu nañ topp sa ginnaaw comme noonu la ci langage bi simple. premier ministre jël leen yoon bi yow ak say membre gouvernement jël leen yoon bii toppal ma leen xoolal ma leen coordonnel ma. suñu paree wax ma nga ñëw. kon loolu mooy le président définit la politique de la nation le gouvernement le premier ministre coordonne l'action du gouvernement les ministres exécutent cette politique définie par le président de la république c'est comme ça que ça se passe. bu dee France premier ministre bi mooy définir politique bi. léegi moo tax kooku bu nekkee premier ministre président kooku mën na ko gêner ci li muy doxal. <laughs> parce que su boobaa bu dee moo koy définir mën na ko définir selon loo ko loo ko bëggeewul mais bu dee si yow président mooy définir et toi tu coordonnes l'action du gouvernement cette politique définie par le gouvernement et cette politique là est exécutée par ce qu'on appelle les membres du gouvernement. <laughs> loolu mooy am maintenant cohabitation Sénégal il faut nu xam cohabitation dafa am condition l'une <laughs> des premières. la première l'une des premières conditions de la d'une cohabitation parlementaire bokk na ci tant que ministre bi premier ministre bi bokkul ci opposition hmm. loolu mënu nekk cohabitation mooy li am fii nii jamono ji ñu naan euh, majorité relative amul loolu du cohabitation hmm. loolu du cohabitation cohabitation du yéen a ëpp rek kon euh, cohabitation déedéet cohabitation bokk na ci condition mu jiitu sans moom amul premier ministre bi day féete opposition. ba pare opposition te pour mu féetee opposition day fekk opposition mu ëppale. am majorité. waaw te loolu France am na fa léegi. Hmm. mais ñun amu fi te mosu fi am. loolu <laughs> kay du fi am léegi nag même tey boo demee assemblée. Hmm. te kaddu googu sa